waaw waaw ma ne ma ne sa taalube boo defal te muy ku xam ko tey ku lott lool te na ma dem tey ku barik sikk te bëgg la it moo la doon taalifal ngir tuubale la ko ci ay way ci sa xam-xam xamal ma may xam xamle ba sa mbir kenn dootut umpale say leer màndil ma ba ma fees te dolli ma aqul yaqiin ak ak sàmm te saxal ma la ci waay kiiwul rek mën naa kii ñu sa géeju xewal sóob ma te gindi ma say may tëbb te cant gi mën loo ma waaw tëbb moom waaw mooy faydam loo xamante ne bu la ko bu la ko sëriñ bi sotti du ko sotti ci ni nga toll waaye dala koy sottee ci moom ni mu toll waaw moo tax ma ne ko sa géeju xéwal sóob ma te gini ma te it fii ma wax naan ci sa xam-xam xamal ma may xamle maanaam daa bëgg mu bàyyi ko xam-xam boo xam ne xilmul laduni la lay doon ndax li tax moom sëñ Tuubaa li ma wax léegi-léegi xilmi ya xilmun laa tura fii kutubi bal jaa ani mi man xamaa nii bittu bi sëñ tubaa rek moom mosax ne xam-xamam bàyyi kowul ci téere yi ci yàlla la bàyyi ko sëñ la jàngal ma ne ko nag yow sëñ Béthio loolu yi nga xam ne ci la la yàlla jàngal nga xam ko xam-xam boobu xamalee ñu foofu ñun yaa ngi dégg moo tax ma ne ko ci sax xam-xam xamal ma may le nga xam ne yow li ngay xam xamle ñaare sax li nga ciy wax ci téere yi da nga koy wax pour dëgëralee ko lay rek waaye li ngay xam du bàyyi koo ci téere yi ba sa mbir kenn dootul umpale say leer mandil ma ba ma fees te dolli ma aqulu yaqin leer yi sa leer bopp yi dugal ma ci sóob ma ci ba dootuma existé ti say leer rek am te nga yokk sama aqul yaqin waaye boo ko yokkee na nga ko sàmm te boo ko sàmmee na nga ko saxal moo tax ma ne say leer man dina ba ma fees te dolli ma aqul yaqin ak ak sàmm te saxal mooy dëgg xam-xam boo xamante ni xelmul yaqin aynul yaqin xaqul yaqin fi mu toll nii xelmul yaqin mooy ñun ñi xam gi ñu xam ne màkk am na nit ñaa ngay aj yaa ngi dégg nga gis koo xamante ni am na ci aynul yaqin mooy toog na ci télé bi gis màkk kaaba gi nekk ni am ñuy wër kaaba gi mu xam ne kon lii lu existé la waaye ki am àqul yaqin nag mooy daa sol daal la moom dem ba màkka jël loxoom teg ko ci kaaba gi xam ne lii am na moo tax xam-xam boo xam ne maa ngi koy sàkku ci doon ci loon man àqul yaqin bu mu doon loo xam ne lu muy lu muy kii la waaw moo tax ma ne ko say leer man dina ba ma fees te dolli ma àqul yaqin akuk sàmm te saxal ma ma ne ko say géeju xewal sóob ma te gindi ma ndax sëñ bi ay mbiram daal runge daa bari te gis nga géej buñ la ci dugalee te awale la ci yoon ba ngay amee jën ju baax ja géej gi day yaatu ci yow ba mun ngaa réer moo tax moo ko ne sa géeju xéwal géej yooyu nag sóob ma te gindi ma say may tëbb ma mooy li ma waxee léegi te cant gi mën ma ndax buñ la tëbbee may ya may yi bari bu mu la tee doon gor nga xam ne kon yow lu may yi bari bari bari ak cant dalaa moo tax ma ne ko te gindi ma loolu laa ci jublu sóob ma te cant gi mën loo ma ma ne saam xel nay xel xeli walwali ba tiim ñooñ tasawuf si fikkar ak xalaat bi leen siraam ma ne xel yi moom nay xelli ak walwali ba tiim waa tasawuf fi ñu toll ci fikkar ak di xalaat mbirum su borom bi siraam nag ci lu dul dog waaw loo xam ne du taxaw bu mukk xel ni moom saa su ne li fekk maa ngi am na xel mi tiim xel waa tasawuf nga xam ne duñ fa yegg moo tax ma ne sa géeju xewal soo baaw foofu noonu ci rek ma ne saa ngëm defaral mu jekk te matit saa kóolute yokkal nga la sa biir na ma fatit xaaral ma liir ko léegi mu kii ma ne ko sa taalu bi boo defal te muy ku xam ko tey ku lott lool te nam ma dem tey ku barik sikk te bëgg la yit dey moo la doon taalifal ngir tuubale la ko ci ay way ci sa xam-xam xamal ma may xamle ba sa mbir kenn dootut umpale say leer man dina ba ma fees te dolli ma aqul yaqiin akuk sàmm te saxal ma sa géeju xewal sóob ma te gindi ma say may tëbb ma te cant gii mën loo ma sam xel nay xel-xel yi wal wali ba tiim ñooñ tasawuf si fikar ak xalaat bilan siraam saa ngëm defaral mu jekk te matit saa kóolute yokkal ngala sa biir nanga nga ma fatit ah seen dara génn ma yéen a ngi sama saay cër sàmmal ba dootul jengati ci lu sa mbég newul ba duma fowati nanu wuyu woote buur ba leen jiite gannaaw ba mu sellee te mucc xol bi le nga xam ne fal xalbu kal maliki fil axdaa yi wax maa yemil tamit ma axtidaa daay xol mooy buur cër yi te fu mu jeng jëm fa rek fa la fa la jeng jëm léegi su ko defee kon fi soo koy soo koy firi doo fiiree cër yi waaye da ngay tàmbalee ci xol bi na la ma ne saay saay cër sàmmal ba dootul jengati ci lu sa mbég newut ba duma fowati nanu wuyu woote buur ba leen jiite mooy fal xal bu kalmaliku waaw mamaa tamit fiyal xal bu yaa ngi dégg léegi nag léegi nag gannaaw ba mu sellee nag te mucc ndax xol bi bu sellee yow li ngay ñaan sa say cër wuyu sa xol na fekk xol ba sell te mel ni mu war a mel bu xol ba sellee nag ci sëñ bi fu mu jeng jëm fa na mboole seen cër yëpp jeng jëm loolu laa si jubla wax ma def ma sa kéemaan fii fi duniyaa ba ñëpp xam ëllëgit jotaay woon ak yow benn saa doy na ma na ko ñépp xam defal ma dalin ci fànn yëpp ba kenn dootul miim naa doy kuy weddi ci xam ne doom morom saa xam-xam yokkal te barkeel te déggloo ma it sew-sew yaag maanaa ya gën a xóotit def ma may géej gu dootul ferati te saay duus na labal ku naw la nga xam bay weddaate <laughs> daa ne xam-xam bi na ko yokk barkel ko te it am dégguloo ma sew-sew yi moo xam addis la alxuraan xasaay lu mu mën a doon sew-sew ba ca nekk arot baag bayaan beeg lépp sew-sew ba ca nekk nga xam ne moo tëggaay yi ñu dégg ko déggloo ñu ko ci suñuy mbir ak maanaa yi gën a xóotit mooy al daqayxu ni ko imaam Jaafar Saadi waxee dafa am traduction littérale mooy ci kaw firim kaw ñu koy wax al ibaratu am traduction boo xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy allusion mooy isharat ah nga xamante ni yow yaa ko ciy comprendre day junj rek yaay comprendre am loo xamante ni allataif lay doon mooy li ñuy wax subtilité nga xam ne loolu nee nañ wàllu yi ñoom ñoo ko moom am loo xam ne nag daqaayiq lay doon mooy les réalités profondes loolu nag laa wax ne xam-xam bi foofu maanaam defal maanaam saa xam-xam yokkal te barkeloo te barkel te déggloo ma it sew-sew yaag maanaa yëgën a xóotit loolu laa si jublu def ma may géej gu dootul ferati te saay duus na labal ku naw la nga xam bay weddaate nga xam ne ginnaaw buñ boo ñu defee ñuy géeju xam-xam képp koo xam ne naw nga sa xam-xam bay weddi mbirum sañ beccu waxuñu ñun suñu xam waaye lay asakay suñu xam nga xam ne mooy vague yi na labal yow nga xam ne du jar ñun li ñu xam sax muy dikk waaw waaye lañu xam rek ne lañ asaka gën a ci génn waaw ma ne yër ma yar ma yërëm ma te yokkati ma hmm. waajal ma te xamal ma laa narutoon a xam ndax fii kat yàlla su borom daa waxoon yonante wa allamaka maa lam takkun taxlamu ndax yàlla su borom day xamal nit loo xam ne bañ koy bind taxutoon loolu la sëñ Tuubaa jublu ci xaatimatul munajat. xamal ñu loo xam ne buñ doon dund junni at waruñ ko woon xam waaye lim ñu bëggoon xamal mooy moom ndekk dafa jóg léegi nag loolu yëpp nag su amee moo tax ma ne tegal saa ndëggug jëfee laa xamati ca boppi xam-xam nga dootut nëxati te nga ñagalee ma leen ñoom ñaar ñii akuk taalibeekuk teggin ba dootu yàqooti léegi xam-xam boobu nga xam day sell mat jekk yiw leer naññ ba dootul nëx bu doon ab jëmm ju taxaw la dangay gis ñaari jëm jëmmi xam-xam bi moo taxaw nii nga gis tànk yi ba ci bopp bi muy xam-xam bu sell bi am beneen jëmm ju nekk ci kawam teg ko tànkam ci bopp bi léegi nag ma ne xam-xam bii li muy sell sell sell te baax na ko jëf ji jëfe xam-xam bi na ko tiim lu xam-xam bi sori sori sori na ko jëfe xam-xam bi tiim na ko mëdd teg ko ndax xam mbir te yeggoo ci mën koo jëfee amul njëriñ lu xam-xam bi sell te baax te kii la ko jëf ji ëpp waaw moo tax ma ne tegal saa ndëggub jëfe ndëggu mooy lii laa xamati ca bopp xam-xam ga dootul naxati waaw te nga ñagalee ma leen ñoom ñaar ñi ak ak taalibee ko teggin ba dootul yàqooti daal ne li ma si jublu mooy xam-xam bu wér ju ànd ak jëf ak ak taalibe gu bir weesu fu feggu yi te fees zahiran wa baatinaa bañ a yem ak man xaaloo taarix ak xat waaw xalaat xii la yeeg yooyu am li ma si jur mooy day sell ànd ak jëf gu wér ak taalibe gu bir weesu fi nag feggu yi téere yeeg yooyu bañ a yem ak ñi nga xam dañ fi nekk naan xaala laahu taala xaala rasulullahi ak yooyu loolu laas ji moo tax ma ne li ma si mooy xam-xam bu wér ju ànd ak jëf ak taalibe gu bir weesu fi feggu yi te fees zahiran wa baatina bañ a yem ak man xaaloo taarix ak xadda sana daal ne bu ko bëggub àdduna kub dërëm lal dara luy ndiru luy yàq bu mu ko laal naay laabire ku ma xam mbaa dong ngay dégg saa kàddu foo mën a nekk loolooy li ma rekk muccal ma ci ñoo ñii ñëpp xam ak kooki ñëpp wut dawloo ma yoo yi ak foofii dul sama cërit muccal ma ci ñoo ñii ñëpp xam boobu jigéen ñi laa ci jublu waaw jigéen ñi moom laa jubal ci naan muccal ma ci ñoo ñii ñëpp xam loolu laa ci jublu jigéen ñi muccal ma ci ñoo ñii ñëpp xam ak kooki ñëpp wut kooki ñëpp wut mooy àdduna waaw alal jeeg yooyu daal ne dawloo ma yooyu yii mooy lépp loo xam ne lu mën a yàq ak taalibe ci xeetu ñàkk solo dund bu ñàkk solo ak foofu yi dul sama cërit barab yoo xamante ni ngërëmu sëñ bi dafa bàyyi ko. waaw waaw dama de ne moo ma ne ko ma ci ñooñi ñëpp xam ak kooku yi wut dawloo ma yooyu yi ak foofu dul sama cërit teel ma sa bopp. def ma royukaay yi ku ma taxool hmm. ci taalubeeku defaru tey gis sa mbir képp ku ma xool naay matal kóllëre fonk tey jokk mbokk hmm. yërëm koo yërëm te lu ma am naa ko bokk hmm. soxnaa ki doom bu kenn xiif bay jéngaani na ñëpp jag cant gi fës kon kenn du ñeetaane teel ma saa làmmeñ ba dootul rambaajeek a jëwaatee ka wax loo gërëmut mbaa di sikkaate naa fekk ma cantaagoon mënul doon bu mu feeñ ci sunu dox setal ñu si yaanu defi nit musal ma ci bew ak aaw di naw jëf sama kon ma réer fàtte ki ma jox te defal ma doxal saa digg ak rëy ak a jàpp ne maa gën ku mu doon naay ko dal xàmme te loo digle naa ko mën waaw xàmme faj nga sunuy aajo tey ak ëllëg fajal aajo yi ku dut ñun ci ñun defal lu waay yaakaar daw si na ko fi fekk te yóbbu bu ma nay mukk naay joxe koppar ak i mbubb defal say ndigal ci ñun muy xarit ba wér wér defal sunu cofeel ci yow muy dundal muy muy dund ngay wéral la gën a wér foo nekk lu nu fekk na nuy xër di la siyaare at yi nay sunu yitte sax cee war bu nu xàmmee yaa ma sa sas wi ndeke yoo naan wuy yokk mar la tey lu saa bët tege ak saa yaa nu yokk aw bayit darajay nabiyun mursal ku la ko sol kooku ko tëkkaleel muusoo puusal yi sas bi xam nga 2009 laa ko jeexal masjula ma ne ko yaa ma sa sas wi ndeke yoo nga xam ne foofu finition la waroon doon waaye nan wuy yokk mar la mujjee doon waaw nga ne ko yaama sa sas bi ndeke yoo naan wuy yokk mar la tey lu saa bët tegee rek ak saa waaw lu sama bët tegee rek damay mën a xam ne lii lii la ci sëñ Tuubaa wax damay mën a xam te jaaruma daara jaaruma fenn waaw mu alxuraan ak xasida ak lépp ci bokk yam waaw tey lu saa bët tegee rek ma ne akasa nga xam ne du fi nekk sax naa lu sama bët tege tey mokkal naa ko dama naan akasa yaa nu yokk daal ne aw bayit nag darajey nabiyun mursal ndax suñu tubaab moo ne wajaxal xasaa yi di ka kulli mursalin yaa man waxabtali ujur rusuli benn bayit bu ne rek xasida gu ne moom mboole seen yenent yi cent vingt quatre mille ñoo tolloo ma xam léegi ma ne loolu nag benn bayit rek tolloog benn yonent képp ku la sol bayit boobu sol na la xam nga daraja yonent kooku nag koo fi taw ko ko tëkkaleel ba naan diw moo mun diw yow muusoo waaw hmm. ku mokkal sas bi kon xam nga doo ko fi teg <laughs> waaw léegi ma ne notal ma saa bakken ba ma far ko moom ba bu may gàddaay fi yow sëf ko saay bagaan muy war waay ma ni nong ca kaw tee koo noy yi ba mu xam nekkee ko bind may liggéeyloo kon sama yaafus du ko xam ma ne ko bakken bi not ko ba ma far ko moom malaktu nafsiya wa zaxzaxtu layin bakken nit mën naa dem ba moom ko léegi soo ko moomee da nga koy utiliser léegi nag booy gàddaay jëm ci sëñ bi bakken ba ngay jël saf sëf ci sa mboole seen bagaan yi nag muy muy waay bakken bi au mu doonoon lu lay lor waaye njariñ lay doon ci yow léegi nag su ko defee ma daal di koy noot nag daal di koy toog ci kawam ba mu xam ne ki ko bind man moo liggéey liggéeyloo su boobaa sama yàfu sama bakken mënu koo xam waaw <laughs> <laughs> léegi ma ne ko àdduna mi xamal ma si moom luy tax ma sib ko ba lu ma si am nu mu toll sante la ko muslu naa ca jaay la sax wóor di ko jëndee àndandoo bu wér tëlee mu jawar sëriñ bi nga xam ne mooy li sax wóor doo ko jaay mukk di ko jëndee àdduna gi nga xamante ne ajo satun daniya bi asboo bi nafisatin xafiya waaw yaq si boxal aqmahu xina lam yura si waali baasi xaa lati xat xa yara xaaniyatun mustadraja bi xubbiha bi xidbatin turdi ladi axabaha daal di wax ne xatta isa mabtada ma xat labisat wa jaddaha mufaadatan xat xubisat awra aynin zata chi bi muntina bu saaxa ka toxla bi mustaxjana marka xadd bi zata xalxi jana bi zahiruha yaxooru kulle musnibi noonu la ko sëñ Tuubaa léegi àdduna jigéen ju ñàkk solo la am màgget gu màgget gu wañ so waaw waaw gi mën a naxee waaw daa ne dafa ne àdduna misaaluha hajjosatun daniya bu ñu leen koy misaal màggit bu ñàkku solo bu bu bu waaye nag xafiyatun ku làqatu la bi asboobin ci ay mbalaan nafisatun yu taaru daal di nag yàq si buqa dana ko njort kan mu ne al axmaqu dox bi xëy na waxtu wa nga xamante ni lam yuraa giseeful si waali baasi xaa lu dul solom gi lu mu koy foog mu ne xaaniyatun jongoma léegi nag mustadraja muy ku nu jay nag bi xubbi xaa mu ne nag da koy da koy bëgg yaa ngi dégg te du yem ci bëgg ko de nee na suñu tuwaa nee na bi xëdd batin day tàbbi nag ci labat ko daal ne loolu loolu moo koy lor tur di lasi daal ne bu ko takkee nag bu yóbbu ko këram bañ tëju si néeg bi ah. suñ tubaa nee na xattaa isa mapasa saa bu futtee ah. maa xat la bi sol lam soloon hmm. mu ne wajjaxaa da koy gis mu faadatan xat ko bi sat muy jigéen ju màgget ju puural puural mooy ko xam ne bii ba daa rëy ba noppi yolam bay lang waaw waaw waaw ay ras-rase. waaw gis nga ni muy rasé noonu ba wàcc. waaw kay te day yolom nag. waaw. waaw waaw. mos faadatan xat ko bisat awraa aynin zaata shay bi munti na mu ne bët ya day xetambe di dagg fees dell ak laas waaw daa tusngalu nga yaakaar ne yow <laughs> sama jongama ji déggoo ne suñu xaani yatun jongama la koy foog waaw daal di marxa xëdd bin zaata xelxi ja na bi zaayiruha yaxooru kullu muslimin daal di doon koo xamante ni moo raw gëlëm gu bémpeñ xam nga gëlëm gu bémpeñ mooy gëlëm goo xam ne daal dem ba daa màgget nga xam ne su la wanee ginnaaw di dox dangay gis ginnaaw gi nii daanaka day wàcc ba ci ba ci yii day ñàkk solo suñ tubaab nee na jigéen jooj noonu la mel nee na àddunaa ngi noonu boo ko jàppee mel na ni kooku nga takk soxna léegi nag moo tax ma wax ko ne xamal ma ci moom luy tax ma sib ko ba lu ma ci am nu mu toll sante la ko muslu naa ci jaay la sax te wóor muy sëñ bi di ko jëndee àndandoo bu wér te lay mujj war muy àdduna ma ne ko saa bànneex nay yow saa bakkeen ci yow danay féex say bëgg ak say wax ak say jëf nay li ma neex loo ne yàlla naa ca ne xàmmete bañ a dof sip loo bëggul te loo newul nay li ma soof léegi fi ni toll saa bànneex nay yow saa bakkeen ci yow danay féex ku ci nekk ak lay lay lay bànneexam xam nga señ tubaab neena na bànneexam yonent bi la ñun nak banex nit ki xam nga dalaa mën a gaar bu sa banex di señ bi banex googu amatul lor bu sa bakken di nexé ci señ bi bakken gogo amatul lor mom la fa ñaan léegi ma ko daay ko doyadi te katanu nguur mak xajut ci man yeewal iya mooma mak waye ya ko mak iya ko bamu deur ba dotul amati sultanun alayna ah, te nu dégg bu ko defu yoon ngóor mag mooy seytaane sëñ Tuubaa ko doon woowee ngóor mag dama ko ne kattanu ngóor mag moom dooleem iblis xajut ci ñun boo nu bàyyeeg moom dara du ko jar li tax mooy moo nu mag yow sëñ bi yaa ko mag te sëñ Tuubaa nee na ku ku iblis mënal li tax li ko waral lenn rek la mooy bañ lay bind da koo fekk man li tax mënul man dara mooy moom biñ koy bind man moom laa fekk moo tax ma ne ko kattanu ngóor mag xajut ci man daay ko doyadi te kàttanu ngóor mag xajut ci man moo ma mag xajut ci man yeewal ba mu ba mu ba mu dër moo mag waaye yaa ko mag daal ne yeew ko ba mu dër ba dootul amati sultaanun xam nga yàlla su ma daa nag seytaane ne ko inna ibaadi sama jaam bopp yi laysa laka alayhim sultaanun doo am ci ñoom benn emprise doo am ci ñoom benn kattan léegi ma ne ko nag yeew ko ba mu dër ba dootul amati sultaanun alay naa te fu mu nu dégg ñun ba mu ko defu yoon yóbbuñu foofu ci yow fu nu seytaane dégg ne ñu ko fa na ko daw bu mu fa sa jege daal ne wax naa nag wax naa te ñaan naa laa mën a lim la làmmiñ dul tudd te xel yeggul fa xiyaasam la xolit yëgul te gisul mbaa tey kumpaam yewee na leen ko si barke jëmm ji ñun rek ñu am am fi tan lii nga fi lim yëpp xam nga daanaka doyoon na waaye yow jàmm bu yaakaar ne yow matal nga am na loo xam ne ala kulli xaalin da nga koy fàtte ndax sa xel du ko jàpp sa xol du ko yëg sa laay mënu koo tudd léegi nag loolu laa ko wax nag ne ko nag yéwénal nañu ko la ñu ñaanul la nga xam ne mënuñ koo ñaan ndax suñu xel xamu ko suñu làmmiñ mënu koo tudd suñu xol mënu koo sax yëg loolu nañu ko yëwinal wàccel ñu ko dal ne nangul nu ma ne nangul ma saa woy wii te aj ko fa nga aj woy ya nga sant te def ko muy faj faj si ajo yi bépp cantaakoon te dolli ko barke si mbiram te jàmbatit nga teggil ko ko daal ne xus jàppal bi la taalif muy tuubu képp kuy wuyoo sa sant wii te nga defar seen lépp daa doon jottali rek cant tuubu ñi ma bokkal ka ñu doy ba ëpp nu say fan ak sa wér yokkal nangul nu ko te jéggal nu jéggal nu te dolli nu dolli nu te saxal nu saxal nu ci sa mbég te sàng nu sàng nu sa malaanu ndimbal li fi ne te lu ko mooy yëgu nu soxna Aida